alhamdulillah mbokki keur musa Info ñu ngi leen di nuyu ak kep ko xamne ya nga ngi suivre chaîne bi waye di jël nuyu bi rek diko tambalé ci khalifatul am Serigne muntaha mbacke di ñaan sunu borom yaagal ko fi lol te mi nga xamne ni lepp lu nu def ci ak murit mo leen koy defal ndax mo fi Serigne Touba tay di sante bu baax euh, Serigne Saliou Touré mi nga xamne ni lu yaatu ci fi loxo nga ca biir waye du mën mëna ñak sante El Diop ak wayam ci dëkk bi ak li fi mu ñuy indi ba egsi ba fii ndax la toon njariñ gam laa war ci mu wés ci ñun rëccuwuñ ci dara waaye di sant ki fi nekkal tey Serigne Touba euh, muy Serigne Ousmane Gningue mu doon koo xam te ni ku jàmbaar lool ñu ànd ak moom liggéey bi euh, man nag maa ngi tudd moo Modou Fall jiite xidmatul xadim kuréel li ci dëkk bi yëpp nga xam te ni euh, moom moo moo moo fi bootu nekk fi di li fi liggéeyal Serigne Touba yàlla dogal ma jiite ko muy xidmatul xadim loolu daal moom leen bëggoon léral ci mbokk yi ñuy dugglu aha jërëjëf santati nan baax sa yam sa mom mom mi nga xamanteni ni képp kuy def li ci mom nga ko royee ñi nga ñaan yalla guddal fanam wéral ko lool ak ñukay koy jàppale ñoom mën seen ak ñom ñi yépp ndax bisu xasida ku ko xam ba nga ba nga ba nga sawar ca sa ñam sa motax sa yam sa mom sëriñ son yi bu Mom day mom mo ñu mo sabab li yépp ngir eh, ak bëgg xasidaam ak wéetal gu nga ko wéetaloon ba ku ñëw fekk ko ci loolu mooy sabab bi ba daanaka yaatu na lool ci Sénégal fépp am na bisu xasida boo xam te ni ci initiative sëñ am solo jógee lu ci waay def dina dina ko fekk ca moom loolu mooy sababu bés bi muy journée xasida boo xam te ni amoon na benn yoon ci kër lañ ko defe woon muy kër baay Aliou Fall da magum muri di sama waajur man mi bii moo ko ñaareel man ko nenee def li fi jaaroon jaar fi muy mbas meeg yooyu noonu moo taxoon mu diiboon nii waaye ginnaaw comme lépp leer na ñu ñu ñu commencé koo kiiwaat te bëgguñu mu dakk incha allahu rabbi ndax alxuraan ak xasida rek lañ fiy def. loolu lu ma neex la fi mu toll boo demee ca bërëb ba fee di nga fekk ku dëkk 50 di nga fekk ku dëkk Kër Gilaay di nga fekk ku Kër Seega di nga fekk ku dëkk Kër Yaaxam maanaam te koo ci kii kenn ëppaloo ko ci bés bi loolu moom yàlla moo ñu ko defal loolu tamit ku ne xam na ni lu eh, eh, lu cosaan la ci murit ndax sëriñ bi moo ko ñaanoon ci xasidaam ku tedd googu mat lawul foosee ni ne ay fu ay mouritam fu nek dañ doon ben kon ñak doon ben mom, buñ ko deful ci ñun la waye kon sëriñ bi mom kon ñun ñoo wara xol ndax ay mourit lañ ndax sëriñ bi ñaan noko bu yag mo tax buñ doone ben benn loolu warul jaaxal kenn loolu dal mom mom mom dal na ci sunu xel bu soobee yalla sant yalla bu baax tay tay tay tey santaat sëriñ Touba ndax li tax mom moy ñun day xam naan euh loolu nonu sunu sas la ndax yaakar naan mbolo mu ngeen gis fi ñak yaakar na du kenn ko xamanteni dina dina def lu lu ndax itam yarewuñ ñu noonu la ñuy yare moom ku ne xam ne ne danoo bëgg di amal nit ñi njariñ maanaam au lieu ñuy amal suñu bopp waaye nit ñi la ñuy bëgg amal njariñ képp ku bëgg amal nit ñi njariñ doo leen lor te ñun lépp loo xamante ni luy andi jàmm la ci la ñuy nekk ndax euh, li tax luy andi jàmm ci lay nekk moom mooy buñ ko deful dañuy wàcc suñu yoon te buñ ko deful dañuy dañuy juwoog njàngalam sëriñ bi waaw kay jërë jërëjëfati bis bi eh, den dineen dineen tëjee ni waaye waaye tëj lañ koy tudde waaye dul tëj ndax itam li tax tëj lañ koy tudde waaye dul tëj moom mooy eh, day doo ko démarré te mu doon loo xamante ni duñ ci doyal ci buñ ciy wax ndax fu mu fi ñuy yegg yegg ak ni ñu gi ndax lu tal ni alxuraan a xasida ku ne xam na li li mu day yëppoog laaj bi nga doon laaj li mu mën a andi ci ci ci jamono ak li mën a fang ci ci ay ñaawte ay ak ak i mbon ak ak ñi koy jàng maanaam fam tey sant Kër Moussa Info tey ñaan yàlla mi man ak bis bi ak lépp lu mu làmbool xasida ak alxuraan yàlla nekk ko suñu borom boole ci yiw wa fu ñu doon suñu yëf fu ñu nekk Lëkkal